jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di leen wax na tey nag ñëwaat naa ci émission mag bi nga xamante ni mooy jàmmaarloo su nag mbokk yi xel yi dem ci fan si waaye bu ma nee xel yi dem ci ñaari mbër yi nga xamante ni ñoo dugg ci digg géew bi di jëflante fan yi gis nañu làmb ji neex na lool combat yaa ngi daw amateur yaa ngi kontaan ah bëri daal moom fi mu toll nii macha allah gannaaw saison baa ngi tëj nag waaye promoteur yi tëdduñ di nalaw benn yoon ndax saison baa ngi tëj waaye ñoo ngi daas di fanaanal li nga xamante ni moo jëm déwén. tey nag mbokk yi maa ngi fi bii wasaare dalal ñaari xale dalal ñaari champion yoo xamante ni nii defe naa ne kenn dootu leen présenté ci làmb ndax sama droite maa ngi fi am ki nga xamante ni mooy Weuz Diambar moom laa dalal bëgg waxtaan ak moom ci làmb bëgg waxtaan ak moom ci kay sama gauche maa am ki nga xamante ni mooy Bébé Diouldé Bébé Diouldé mbokk yi ñu si bari xam nañ ko ci làmb ñu ci bari tamit euh, defe naa ne gis nañ koo gis kaw ci digganteem ak Brise de Mer numéro 2 dama leen di bàyyi ñu nuyoo ñu doog a waxtaan wi Bébé Diouldé nuyu naa la. onsi billah bismillah inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jaarama Cheikh Ibra euh, sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg ak xalifa Baye Wali di ñaana sama wasila yàlla yàggal ko fi sawar gi ñu jëm yàlla yóbbu ñu ci jàmm di ñaan feet bi ñu jógee tamxarit bi. Hmm. lépp luñ ci ñaan yàlla na ko yàlla nangu maa ngi lay fay Ousseyn. Hmm. di nuyu sama adversaire bi di nuyu. bi Wës Jambaar maa ngi nuyu bu baax a baax di nuyu waa Yaraax euh, ñoom Grand Abdou ñoom Issa Camara di nuyu sama doom nday Aliou euh, di nuyu euh, aussi waa Wasaare gi maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa marché di leen di nuyu waa Bawal di nuyu waa Grand Dakar bu baax a baax. Wës Jambaar nuyu naa la. auzu bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi. ñu ngi sant suñu ñaari waaju hmm. di nuyu bépp internaute wasaare lamb. ñoo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu Ousin ñoo ngi leen nuyu. di nuyu sama grand euh, bébé Julde di nuyu say caméraman xam nga di ziar ñëpp di nuyu jé kii. Mañik ñu ngi koy ziar bu baax. di ziar képp koo xamante ni waa axlu làmb di nuyu sama waa dëkk waa Ngaye Mexe. di nuyu waa Yaraax mi nga xamante ni falaa nekk di nuyu waa Maris xam nga waa cité ay say yi nekk Yaraax yëpp pause jàmbaar moo ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. di ñaanal ñëpp jàmm di baalu ñëpp ak ci tamxarit bi nga xamante ni moom lañ jóge di souhaiter bonne et heureuse année bépp musulman mm-hmm. ci at bu bees bi nga xamante ni moom lañ dugg mm-hmm. di ñaanal ñëpp jàmm ñu duggee ci at bi ci bismillahi rahmaani rahim jeexalee ko alhamdulilahi rabbil alamin mu doon atum naataange mm-hmm. atum xéwal atum jàmm di ñaan lépp loo xamante ni musiba la woon wala balaa yàlla na yem fële yàlla bu ñu ci dara topp di ñaanal ñi nekk ci prison yi yàlla na leen yàlla may seen liberté ku ci tolof tolof dugaloon yàlla na ko yàlla teggi loolu ba mu génn di ñaanal ñi si hôpital yi aussi yàlla na leen yàlla may wér ba ñëwaat jotaat seen santé nekkaat ci képp ku am problème wala problème bu mënti doon yàlla na la ko yàlla teggil di ziar ñëpp waaw dama dégg léegi nga ne maa ngi nuyu sama gaa Bébé Diouldé sa gaa non sama grand la parce que respect respect bi nga xamante ni dafa dox sama diggante ak moom. Mhm. parce que dama dëkk ak ay nijaayam tamit yoo xamante ni ñooy fréquenté chaque jour ba pare ñu bokkoon salle max di entraîné. yaa ak moom waaw mu doon grand bu baax grand bu cool wax dëgg yàlla. Hmm, loolu xam ci moom. waaw ku cool dëgg yàlla. mën a waaw champion la. ma ko daan supporté wax dëgg yàlla man. Hmm, léegi nag sama mbër la woon ah. léegi nag non ba léegi suy da suy bëree dama koy yéene ndam. Ah. waaw. ah waaye fan yii ndam moom soxla na ko affaire de. waaw làmb moo demee noonu xam nga làmb moom làmb moo demee noonu làmb moom. des fois da nekk ci néeg bu leer naññ des fois nga ñu ibbi la benn bunt nga dugg ci. defe naa li may wax sax yow mi sax da nga ko da nga koy moo tax moo tax ma. 11 combat wala waaw. ñaata défaite 3 défaite 3 défaite victoire waaw. non 8 victoire. 8 victoire de. waaw moo tax ma lay expliquer làmb des fois da ngay da ngay nekk say biddiw. Mhm. des nga nga. affaire yi lëndëm sa côté trop. kan moo la njëkk daan. man Fils de Balla. Fils de Balla la njëkk daan waaw Fils de Balla. après euh, kii nu mu tuddeeti waay. Youssou léegi da foofu sax laay taxaw tuuti balaa maa ñëw ci Bébé Diouldé parce que dama gis nga jël sa combat yow ak euh, kii santan ñingu waaj ko ñe def signature yu neex ñëpp naa ñaan ñi ba mujj gi sax dañoo fàtte grand combat bi ndax yéen ñaar seen signature bu neex mhm. mais ñu dem ba au dernier moment ñaata fan la combat bi yàqu une semaine daal après yooyu semaine rek. nga jël Youssou Ndour man bi ma ñëwee gis ñu ne Youssou Ndour lañ ko remplacé dama dem ba digg bi ma ne non Weuz Diambar dañ koy tànnal yoon parce que nga fa pare cent ans ak combat ni mu neexee. ñu ànd Youssou Ndour naa ne dañuy wërlu nooy parce que bëgguñu yàq damm moral la moo tax jox ko Youssou Ndour mais nga ñëw si diggante Youssou Ndour kenn xamee Weuz Diambar. waaw combat boobu ma cent ans ngi moo taxawul mhm. ñu koy préparé ay weer. Mhm. ñu koy préparé préparation bu métti. ba mu des une semaine santan ñu ngi ni dafa blessé mënatul bëri mm-hmm. léegi Père Gaston woo ma ni ma santan mënatul bari mm-hmm. léegi nu ñuy def ma ne ko ah man ne bëree lu ma am bëree ma ko gënal mm-hmm. ndax boo bëri mbër buy préparé jël say moyens yëpp def ci làmb ba mu des une semaine combat bi nar a nax saay sooy préparé waat tamit day li nga def yëpp à lay doon te promoteur bi du la dooleel xaalis du la lii parce que problème boo xamante ni la ndogalu yàlla la quoi. Mm-hmm. ma waxtaan ak samay staff sama staff tamit ñi ma bul bul sorxo sorxo sa carrière. Mm-hmm. toogal nga xaar ba mu tane boobu ñoom nanguwuñu nanguwuñu nga dem bëri. fukk jeunesse lii ma ma ma jël. parce que boobu entraîné nga yëg sa bopp. ma jël makkan si suuf. ma ne ko da ngay da nga may menacé ni ma da ngay bëri par yow yaa woo Makan waxu lool. waaw ma ne ko danga may menacer pour man maanaam pour bëgg a bëre quoi mbër buy préparer combat bëree rek lay gis. amul leneen lu mu doole day yokk fit. waaw boobu fekk na fekk na ma pare. man waaye bi ma ko waxee sa téléphone bi bi ma woowee téléphone wax ma ko téléphone bi ma ko bàyyi ma wadd. mbër buy ne waaw sama moral bi yëpp la dam. fi ma toogoo noonu toog naa fi une heure de temps juguma. parce que kuy préparer combat di ko préparer sa moyen nga miiraat sa bopp say mbokk miiraat seen bopp yëpp dugal ci làmb ji. mu des une semaine ñun la amatul loolu dafa metti ma ne non man moom bés bii dama koy bëre quoi. nga woo Makan ne ko na la menacé pour nga mën a ñëw jëflante. waaw ñu ni adversaire bu man leen dama leen uti adversaire bu leen neex ngeen ñëw indi ngeen ñëw indi ko. Euh, PAM dooy leen leen njëkkoon dem seeti PAM dooy ni mënul bëri combat une semaine xaw ma waaw ñu dem man leen dem leen ku ñëw rek baax na ma bëre. Mhm. waaw. ñu dem andi Youssou Ndour. ñu dem indi bi bëri Youssou ne man xawuma ko sax xaw ma Youssou dama leen jëm leen jëri na doon mbër rek. ba bëri waaw parce que Youssou Ndour nag bi muy bi muy bi muy ñëw di man bi ma sax ki may bë ki may bëri sax xaw ma ko. mais bi nga ko mhm. lan nga lan lan nga njëkk wax ci sa bi nga ko gisee tak xam ne kii laay jëflante. non dama ne kii arbitre bee ko fi bàyyi. Mhm. mais xam nga ku préparé combat moom mu ñëw day ñëw pour salter rek. Mhm. dafa ñëwoon nii moom. lamb ji tey ma tey du ma daanu damay waaw lamb ji day yàq amul dara lu mu amul dara. su ma mébee mu dem taxaw yi na leen nanguwul jàppante nanguwul xeex nanguwul lii. mais nag mais nag keroog ah, xam nga keroog maa ngi woon ci stade bi man moom yi gars yi di yi gars yi di wax suuf dama ko yëkkati ci kaw. Mhm. ñu ci bay dañ ne Weuz Diambar amul doole. Weuz Diambar day musculé wu jàmbar Diambar euh, jaaytaar la mu du mbër parce que keroog ni nga bëree. da loo loo loo da nga dem yaa est-ce que rëppuloo benn yoon xaw ma ñaar yoon bi ngay bi ngay forcé. non benn yoon benn yoon danoo dem. Mhm. may dem di ko jëli. Mhm. ma rëpp mu wër ma ndomb. Youssou Ndour daanu ma de. Youssou Ndour daanu vidéo la neexee nga xoolaat daf ma war a ma ma prise ko. maa tëdd ci kawam jaaxaan sa ba pare mën naa la envoyé combat bi après nga tegaat ko. mais ñu ci bëri leen jaaxal mooy ni nga waajee combat bi moom hmm. waajul dafa ñëw une semaine pour mottali. waaw xam nga xam nga xam nga xam nga yow nit mën nga pare à cent pour cent. Hmm. nga ñëw koo xamante ni du du mbër sa taxaw fii nii doo ko daan doo ko du bëreewuma du bëri ndax bëre ñaar a koy def. Hmm. soo ñëwee soo xàccee mu dem taxaw ne leen di cali cali ci biir géew bi su fekkoon sa moroomu góor la koo xamante ni dafa samp jaaga comme yow ngeen taxaw bëri bi du am ay seconde mu jeex mais keroog bi nga ci daanoo am nga am nga ci am nga ci mbetteel de. bi nga ci dugg non parce que aw ma ci aw ma ci mbetteel ndax daanu ma. daanu la xëy na arbitre moo def erreur ndax combat baa ngi fi soo leen neexee ngeen seetaan daf ma wër ndomba mu prise ko ba jaaxaan ci kawam nii ñu jóg arbitre def erreur yëkkati loxo. nga dem waaye parce que su ma daanoon dinaa dinaa ne damaa def erreur mu daanu mais daf maa wër ndomba yëkkati aatoon moom mu teg ma may tegee la mu prise ko. dinaa ci ñëw parce que defe naa bi nga jógee ci loolu dañ la woowatal santaane nga mu ñëw pour ngeen remplir seen contrat yi ñaar tegal foofu sa loxo ma ñëw ma ñëw ci bébé julde bébé julde nga xamante ni fi la fi bëgg daam seen bëri fa ay combat yu neex bëri fekk ay Youssou Ndour bëri fekk ay Maama Lamine daje fekk ndaanaan yu bëree bëri yoo xamante ni nii xam naa ne après sax dinaa dinaa Modou Anta dinaa ko dugal am nañ benn audio deux deux minutes rek boo xamante ni nii jot nañ ko def peut-être bu ñu demee ba ci kanam duñ ko dugal mu wax ñoom ñaar seen palmarès suñu jot a jaar maa ngi koy nuyu bu baax baax mais nga bëri ndaanaan yu bëri Bébé Diouldé coow lu bëri woon sa côté ngay daan muy neex mais ñu jékki-jékki xamatuñ Bébé Diouldé yaa ngi ci 16 combats n'est-ce teg la ci ñaari défaite. non deux défaites laa ngi teg la. deux défaites yëkkati micro bi bu baax. deux défaites laa ngi teg la deux défaites. deux défaites. Mhm. fi mu toll nii fi mu toll nii yaa ngi ci ñaata combat ñaata victoire neuf wala huit. onze onze onze onze onze victoire cinq défaites. ñu jékki-jékki xàmmeetuñ Bébé Diouldé. Bébé Diouldé day ñëw bëri daanu. bon li boole li ko neexee li ko naxee dem ñibbi bu ñëwaatee affaire yi xaw dëgg lan mooy problème bi. ah mais dañu sant yàlla bu baax a baax ndax uh, mën naa ne na suñu ay yoo xam ne ñoo départandoo woon ci làmb mm-hmm. tey fekkeetuñ ko mm-hmm. wala soit ñi am nañu a bëre mm-hmm. ba làmb fu ñu waxee mbër ñu mën la bu baax a baax a baax ndax uh, sport moo demee noonu dafa am ay haut ak ay bas uh, su ko présent rek instant bi ci liggéey lañ tolluwaat dañuy liggéey xam ne ay xale lañ lu ñu yàlla may jël te am naa yaakaar ne bu baax a baax a baax liñ doon yàqal xool nañ ko ba gis ko dañ ko dindi ba mu set incha allahu rabi bu ñëwaatee ci laamu dina changé waat ndax mën naa ne kàttan gaa ngi fi xam-xam baa ngi fi fit baa ngi fi loolu kenn werante wu ko kon yàlla suñu borom moom mooy dogal dogal boo gis dafa ànd ak sabab. Hmm. xëy na li ko doon sabab nag xëy na trouvé nañ ko ñun ñëpp gis nañ ko. da ngay génne ñu continué ndax ñun ay xale lañ. Hmm. ay xale lañ wax ay xale lañ. ah sama grand bu ñu ñëwoon fii da nga naan kii magul bébé julde wallahi hmm, dañ ci yàlla bu baax a baax damay ñëw sa dernier combat yaag euh, kii euh, nu mu tuddee tuwaay. Brise numéro 2 keroog bi ngay ñëwee euh, bu ñu xool ci toll dayo beeg taay beeg lépp da nga koy da ko koo ëppale ba ci wàllu ñëpp ñëw ñëw ci stade bi yaakaar tey Bébé Diouldé day ratifier boppam. mais nga ñëw keroog jour boobu mën naa ne mën moom jour boobu nga gën a nga gën a dugg ci kàmb gi parce que ni nga bëree kenn kenn kenn comprendre parce que mënoo bëre ak ndaama wala wàcc toog say tànk siggi dàq ko ba na jonn jël sa tànk. dëj la nga toog te ñëpp nee nañu woon euh, Brise de Mer numéro 2 ci tànk yi la jëm nga jël tànk bi sexal ko mu jël. Euh, li ma la wax rek sànq dañ ci dañoo dañoo nangu woon en fait euh, lamb bi des dañoo calculer woon lu bare bare bëri comme par exemple waa ji topp naa ko benn tànk moo tegu ci saako bi pour man yéeg génn saako arbitre soufflé micro bi pour man génn saako arbitre soufflé waat pour ñu dellusiwaat wallaahi ci la ma songee mais maag moom si biir géew bi rek sans tànkaat di maa du ma songu mais noonu la demee woon. Ah, moment bi muy jël sa tànk yaakaaroon moment bi muy jël sama tànk bi yaakaaroon naa dafa génn saa bi dañuy àtte wallaahi lancim ku dee yaag sa bàmmeel nag loolu nag man la concerné ndax tey dama daanu du ma salté dama koy félicité bu baax a baax xale la daan na ma mais loolu moo moment moment def handicap ba tax ma daanu. mais nag làmb la ci làmb la ñu nekk làmb la ma daane dañ ci sant yàlla bu baax dañ ñaan yàlla suñu morom defeti yem foofu. mais mbër bu daanu daal ne bàyyi naa keroog bu ñu fa jógee da ne bàyyi nga. non c'est que euh, lamb li ma si metti ba tax ma bàyyi dafa bari billaahi wallaahi wa taala. dañ ca daj ay coono. yu métti métti métti lamb yi ma daanu yëpp dama ci financé ba sonn jox ko cër bu baax a baax ndax mbër ma masul sumee ko ñu ne Bébé Diouldé entraîné wul amul. parce mm-hmm, mm-hmm. que alxuraanu karim dama koy jox cër bu baax ma ñëw ñàkk ko. lamb oto bi ma yàqu suur bi ñu ne suba la lamb ci guddi gi 4 million lay jar barke alxuraan. oto sama oto nijaay mu aal ma ko ma dem sama dëkk di ñibbi si xalu ko laa soge oto bi feeraay lañ ko yóbbu tout droit barki alxuraanul karim lu ci xew dama def soog biñ ne suba la làmb ji vingt-trois heures billaahi wallaahi wa taala ma def soog boobu nag ay ñaanu kilifa rek moo tax deewuma barki alxuraan ndax loolu laa mën a gis bi soog bi jaalee dama ne wax dëgg yàlla su ma jaarukoon sama sëriñ mu ñaanama ci yoon bi laa yem billaahi wallaahi wa ak lu yàlla dogalul mm-hmm. ah, maag chauffeur bi ak sama benn cousin bi newoon ci oto bi dara wookuñu oto bi ku da nga naa mbër te li ma yàlla di ma dama wàcce siège bi te pour ma ne xaaral ma récupéré moo tax gaaw ñu ma si bi ak ñaanu kilifa ak ñaanu waajur oto bi tout droit ferraille la jëm kenn mënu ko defar te oto bi 4 million lay jaar bi ma ko woowee téléphone ne ko damaa def soog inna lillahi wa inna ilayhi raji'un la wax pour ma man oto bi nit dee na si ma ne ko sant na yàlla bu baax kenn gaañuwu ci mu ne ma wax oto bu ko waxati man sa bakkan laay sauvé mais du oto mhm. billaay wallaay wa ba léegi su ma koy wax sama xol bi ñaan yàlla rek mi nga xamante ni ma suturaal ab jaam. Mhm. li ne sama kanam mu dimbali ma ba ma ci ba rempli ko loolu loolu laay sant yaa na yàlla bu baax. yàlla mën na ko wallaahi naa si dama doon wax naan teral sama yaay ci làmb tax a jóg mais wallaahi sama contrat tey nii nii nii. jënd mhm. ko kat kan muy dawal loolu ci la bokk. ndax su ko neexoon tamit mu demee mhm. ndax xam sama nijaay la mais bu ko neexoon ne xëy na oto bi mu yàq dugg na fii génn fii mais soxlaalu ma dara. sama carrière bu ma door a ba léegi saa ma sa entraîné moo koy fay. école bi. saal bu ma entraîné moo koy fay. Mhm. bëggul sax mu tudd turam fay marché ti leen te ndaw la soutien de famille la aussi li mu boot bari su ko neexoon ne xaj na situation yi ma nekk du ci boole leneen mais déedéet dañ koy sant bu baax yàlla lañ koy bàyyil yàlla na ko yàlla fay. Ah, gën a liggéey rek kaay baa ngi ci kanam yàlla yàlla moom mën na lépp euh, yow Weuz Yamba ñu jugee ci loolu nga am nga am defet ci kaw euh, kii Youssou Ndour nga ñëwaat bëgg a remplir waa sa contrat yow ak euh, kii nu cent ans mm-hmm. nga ñëw jëlaat cent ans cent ans ñu wane na dama feebaroon tane naa mais moom bi muy ñëwaat ñu ci bari dañ ne cent ans bàyyi xale yi parce que bi mu ñëwee bi mu simee ko ñëpp gis nañ ne na ngeen bëri ñaar combat bu neex te yàgg non combat bi yàggul sax combat bi xanaa ay seconde la sax yàggul matul une minute sax kon dafa gaaw waaw combat bi xëy na man maa ñëw bëree bëri xale ñu taxaw ma samp jaaga mu samp jaaga xam nga cent ans du arrièreal kenn. Mm-hmm. man tamit du ma kenn. ñu weccoo ay coups dóorante ba ma sentir ni touché ko mu ba ma sentir ni touché naa mm-hmm. jàpp ni lii nag mu daw mu daw jàpp jàpp mu daw sonk jàpp jàpp ma. ñu jàppante noonu ma dóor ko plaqué di daw ak moom noonu mu suruxal ma dem teg arbitre bi yaakaar ni nga yi nga daan. benn image image yaa fi man man amuma lu ma ci image yaa ngi su la neexee nga teg ko. kon daanoo boobu encore. non boobu trois appuis hmm. mais bu ñu wax ba ñuy même ni ni bi ni ñuy aatee sax may naa ko sama loxo bi ñu bàyyeekul génn ko ñu mais loolu lépp ci jógee erreur arbitre. ndax amul amuñ si dara loo xamante bi ñu ci jógee defaatoo recours comme que daanu def nga recours. non non parce que bi ñuy dugal recours bi boobu dama dama fee jógee dem dem voyage. Hmm. sa dëkk. maam yoo xamante ni dama ko waroon dem def foofu noonu léegi bi may ñëw xaw ma CNG dañuy xaw ma recours xaw ma ñaata temps la war a durer xaw ma soo ko dugalul. bi ma dem foofu ma am ay cinq jours ñibbi pour ñu dugal recours bi ñun ñu c'est trop tard quoi. ñëpp nag naan Weuz Diamba playboy la Weuz Diamba du mbër. Weuz man moom man moom nit ñi xamal lan bëgg lan lan bëgg. Mhm. nit ku ni yërëm. waaw man kenn du ma yërëm. yàlla daf ma teral. du ma dem ci kenn di di sëngéem. daa may dégg liñ bëgg ay moowu jaaytaar la ak lii lan mooy signification jaaytaar lan la. xanaa nga solu sañ sa. léegi lu ñu bëgg may sol sagar. Ah, xaw ma fii kay dewuma ci kenn di ko tàllal loxo. kenn xamul lu nit ñi ñoom lu ñu bëgg ngay dem di leen tàllal loxo. man dewuma ci kenn di ko tàllal loxo. yaa mm-hmm. may dégg lu ma sol sama xaalis la jar sama ñàkk la jar. téléphone bu ma bu ma jënd lu ma jënd lu seer sama sama ñàkk la jar. li bëgg du ma ko def. du sol sagar ñu may yërëm dama jox ay mille francs dama téeméer dama rey rek dama lii nii man damay bëre damay liggéey téléphone yi ma yor nii rek lii rek un million cinq cent la. Oh. moto quatre millions laay dawal. kon amul kenn koo xamante ni liñ bëgg man dinaa ko def yàlla su la teralee da ngay wane lim la teral da nga koy wane naan sant yàlla day nduru tiitaru ah li ko ni ko Fallou Ndiaye di waxee nee na oto yu baax yi pour ñun. pour ñun la ma maanaam ñoom lan lañ bëgg mbër mbër lan lañ bëgg ci mbër. ñu ne mbër dof la. mbër dof man da man du def lool. nit ku nekk sa métier. dana ciy fekk naw la ci. Mhm. jox la ci respect. man bëre bii may def ku ma ci fekk daf ma war a tóojal xam ne kii ku bëgg boppam la. Mhm. yàlla si boppam moo njëkk bëgg nit ko bëgg boppam. man am na ñoo bari lu ma bëggee ci làmb du dara li ma bëgg sam bopp moo tax ñu bëgg ma. Mhm. kon nag ñoom seen critique yooyu ñuy def taxul ma lii may def ma koy baax. kon yaa ngi koy dégg non fii ngay def da def ñuy wax soo deful ñu wax. mënoo tere kenn mu wax. mais Weuz Diambar ku ko xam ba muy nekk booy ba nii xam ni nii comportement bi lu mu judduwaale man du ma sarax kenn saraxuwuma te du dem kenn di saraxu. Mhm. soo demoon bay wax da ngaa naan ah Weuz Diambar maa ko jënd lii wala daa àbb li ma yooyu àbbuma ci dara sama ñaq lay jar lu ma bëgg maa man maa koy ñaqal sama bopp dem jël kon du ma dem ci kenn naan ay di di sol ay sagarak di di di di leen wër di ñaan ñaanaatoog yooyu noonu xalaatuma ko. lin bëgg du ma ko def lan lin mbër lin bëgg entraîné maa ngi entraîné. Mhm. su ma duggee ci géew ñu xam ne mbër kaami la ngi nii su ma dongalee ñu xam ne kii mbër la. waaw boo takkoo jaay taar gi jaay taar li ñuy wax loolu juurul làmb dinañ est-ce que ko gis dinañ gis ma lii mbër bu xajam ngay gis. waaw da ngay de. su ma dugg cee ci làmb ba dongal yi ñëpp signé ñëpp kontaan amateur yi ñëpp kontaan loolu mooy loolu mooy objectif bi suñ si paree teg ngeen ba dem doon nit correctement ndax ñun ay image image yi dafiy dafiy des. Mm-hmm. te dañuy ami njaboot ëllëg. te bëgg nañ image yi ñu fiy bàyyi mu doon image yoo xamante ni suñ doom suñ suñu gisee du duñ rus. wala duñ gis su seen image ba pare du toog di ko seetaan suñu doom ñu naan yow papa ndeke nii nga dofee woon nii nga lii woon. kenn ku si nekk da nga war a defar sa image te image dafa am solo ci làmb. lu tax làmb ñu bari mënagu ñoo jox cër imagine ci wane la. Mm-hmm. communication yoo xamante ni yu ni yu ñuy wax la yoo xamante ni ba léegi dañuy jàppee mbër ay dof la. am ñoo xam ne dañuy am complexe sax diw mbër diw mbër la. ndax ñoom mbër euh, li ñu étiqueté dafa dafa dafa dafa lii mooy mbër dafa dof mbër violence mbër warul xam boppam warul bëgg boppam. du loolu affaire dafa ñun suñu dimension. dafa war a dépasser foofu. Tyson yee nañu ba sonn. dof yi ngay gis nii ñi ñi nekk ci làmb ji dof dof lu gisagoo ci kenn koo xamante ni egg na high level bi ay tey ni ngay gis ñoom yëkki ni bombardier suñuy toog di wax da xam ne ñii seen dimension sax nekkul du affaire làmb mm-hmm. ku ci communiqué nga xam ne kii nit njaay la. Mm-hmm. mais ñi ci wax waxu dof yëpp comédien la leen di jàppee dof la leen jàppee ba keroog ñoo xamante ñuy jóge ci làmb mais ñi nga xamante ne dañuy toog di wax waxu nit wax wax yoo xamante ni. lu dépassé affaire affaire affaire boo yooyu. mais nit sax balaa ñu la respecté da ngay respecté sa bopp. da ngay bala nga balaa nit ñi di la bëgg tamit da ngay bëgg sa bopp ba pare. Mmh. su ma jógee ci loolu damay damay damay daw léegi ñu dem déglu ji Modou Anta sans frontière. te dellu si waat euh, defe naa ne lim na palmarèsu mbër yi ñu xool ñoom ñaar fi ñu fi ñu déparé ba fi ñu yem dégg naa sax ci biir waxam nee na làmb boole na leen ndax kenn mënuñu cee bañ sa moom aarama ñu dem déglu ko te dellu si waat. jaajëf Ousseyn Borom Jamarloo bu baax di siyaar suñu mbokk internet yi à travers Wassare Lamb yëpp ñu ngi leen di béggee tey jàmmaarloo nga dalal ñaari ndaanaan muy Weuz Jàmbaar bu Mbiita Njaay ak Bébé Julde bu école de lycée Mbaba ñu di siyaar baax di leen jox seen wàccuwaay wax dëgg yàlla combat la man gis naa ne combat la ñoom ñaar parce que yoon bu yàqu moo leen boole yoon bu yàqu moo leen boole ñoom ñaar ñëpp parce que boo dee xool Bébé Julde première grand combat si la dégg mu ñëw moom ak Birahim Junior bu Boy Gandiol mu amoon wax dëgg yàlla yoon bu baax a baax daan ay ndaanaan yu bëree bëree bëree bëri ndaanaan yi mën nañ cee cité kenn rek ba mu ciy fekk Baye Ndiaga combat bu metti la woon ci ñoom ñaar ñëpp par la suite mu dóor ko mu daanu wax dëgg yàlla mu bëreeg ay ndaanaan yu bëree bëree bëree bëri mu mujj a bëreeg Brise de Mer numéro 2 Brise de Mer am ndam si kawam yaakaar naa ne dafa tegle defet yaakaar naa ne loolu war na ko boole ak xale bi nga xam ne mooy wus jàmbaar waaye bu daanoon Mama Lamine bu daanoon Youssou Ndour yaakaar naa ne du bëre wus jàmbaar wës jàmbaar aussi tamit di ndaanaan bi duggee si làmb mën naa ne yàggul daan ay ndaanaan yu bëri dañuy cité rek xam nañ palmarès bi yëpp dañuy cité ku ci mel ne Mbaye Tine Junior bi mujjee ki nga xam ne mooy Koña 2 dañ ciy cité ki nga xamante ne nii mooy euh, Ngele Jo dañ ciy cité ki mooy junior mu daanoon ay ndaanaan quoi comprendre moom tamit premier grand combat am la daanu mooy 5 juillet 2016 digganteem ak Fils de Balla bu daanoon Fils de bala day rëcc kon du bokk ak yoon ak xale bi nga xam ne mooy bébé Diouldé mais nag làmb des ay mbër. mais man gis naa ne combat bu neex la wax dëgg yàlla fii Bawol moo Modou Anta ngi koy jaajëfal bu baax a baax ndax dama koy ni ma koy waxee rek dictionnaire la ci làmb xale la boo xamante ni làmb ko ñor moo ngi bay waa ñu koy jaajëfal bu baax a baax gis nañu ni mu décortiquer ni nga xamante nii nii fa la fa la fa la euh, Weuz Diambar jaar euh, bébé bébé bébé fi mu jaar wax na palmarès ñoom ñaar ñëpp euh, ñoom ñaar ñëpp wax na fi ñu a jaar fi mu toll nii bu ma doon wax sa combat bi bi nga bi nga fi jógee ba léegi xam naa ne moom promoteur yaa ngi lay contacter pour pour bëgg nga bëri la fan nga toll. waaw man naa ni mbër yi gën a jar ci làmb ci laa bokk. yi gën a jar yi gën a jar yi promoteur yi gën a soxla. waaw di bëgg moom waaw man mën naa ni ci laa bokk su ma bëreewul rek ci man la. Mhm. ndax euh, li naan nit ñi ñooy daw di wëri promoteur yi mais man promoteur yi ñooy daw di ma wër. Mhm. moo tax problème combat aw ma ko. xëy na problème mu adversaire boo xamante ne nii dina la mën a apporter dara. Mm-hmm. xëy na problème bi foofu la foofu lay nekk. donc mënumaa toog une semaine te deux à trois promoteurs woo woowuñu ma bi may ñëw nii rek sa ménagère moo ngi may woo man ko xaar ah, damay def benn émission su ma paree naa la rappeler. mais yéen yéen yéen yéen yéen adversaire lañ lay wax yoo xamante ni parce que bu ñu lay woo tamit. ñoo ngi mm-hmm. tegal ay proposition yoo xamante ni euh, war nga ñoom ci ñi nga war a jëflanteel. waaw doon na ma woo di ma proposer laay goote. bu Thiès bu Thiès proposé na ma ko non man de du ma ko fi bàyyi suy yàqu moom xam naa du yàqoo sama côté. ci côté am lay yàqu. pare nga pour bëgg laay côté. waaw loolu du tey ndax sama combat maag santaan ñi ngi bi moom maag moom la woon li waral ma dem santaan ñi ngi jël avance bi Bombardier moo jël avance bi. moo tax moo ñëw Pierre kër Pierre Gasson ni ko sama booy bi laay utal combat mu ni ko mu ni indi mu ni indi avance bi ma jox ko santaan ma ne ko na ko jël amul problème. ak ñan. waaw man ñin may limal bari na xëy na di am na ñoo xamante ne doo tudd seen tur fii ñu naan xam nga rek mooy loolu ko mais mbëri may limal bari na trop day fekk ñii doo leen bëgg wala ñi ngay bëgg des fois duñ la bëgg noonu lay demee. tere moom solo fa ma ñëw gannaaw yow moom danga woon bàyyi nga te léegi dellusiwaat nga ci làmb promoteur yi moom xam naa du la bàyyi gannaaw ndax Ibama bi naa ne dañ koy tëj rap boobaak léegi loo tee bëre. waaw loolu dañuy dañuy sant yàlla bu baax comme comme Wes li mu wax rek man promoteur moom amul problème mu problème combat mhm. man maa nekkoon ci sama ndax maanaam booy dem ba xamatoo fa nga jëm da dellu fa nga jógee ma delluwaat sama dëkk ànd ak samay mbokk defaruwaat ba am yaakaar bu baax a baax a baax li ma doon defar baax na ma dellu siwaat instant yi tëjël naa yi ñëpp ku fëgg ma tëjël la di nuyu sama grand Ibra Diouf borom bi waan production staff yëpp su ma limbee du mais maa ngi nuyu li la wax mbër pare na li mu war na nekk nekk na ci entraînement yi moo dese nañ ci delluwaat incha allah. Hmm. mais sa diggante Weuz Diambar bi dama ko bëgg parce que bu ñuy xool ci dayoo ci tolluwaay peut-être nag yaa kay xaw a raw tuuti ci ci ci ci côté palmarès ndax moo ngi wax léegi sama gars te bi nga limee palmarès 16 combats 11 combats xaw nga ko raw tuuti ci ci ci làmb. mais sa diggante yow ak moom defe naa ne làmb du ko dàq ndax su ma juumul da nga teg le deux défaites n'est-ce pas ne deux défaites dafa teg lantoo moom tamit deux défaites tamit da teg lantoo a jëflante pas nga ko bëgg ak rek mu ngi naan sama sama biranga et tout mais làmb moom mm, du biir day xëy rek wasin mm-hmm. man ba ñu mu benn bër ku ma làmb boole rek damay bëre moom non bébé Diouldé laa wax kii ga laa wax wës jàmba mi la wax rek xam nga tey jii su ma toogee ne bëgg naa bëgg naa bëreeg wala bëgguma bëree góos loolu ay wax yu yàqu la lamb mën naa ñëw on surviendra lamb boole ñu. c'est xam nga xam nga des fois dama leen fi woo pour ñu jàmmaar loolu naa ne xam naa ne yow fi mu toll nii gis nga moom fi mu toll bi mu ñëw ba léegi moo ngi ñàngal aat <laughs> di vandi vandi mais xam naa ne yow loolu safu la moo tax may laaj est-ce pare nga pour jëflante ak moom parce que. non li ma la li ma la wax rek. man laa ku ma boolee pare naa pour bëreeg moom. pare nga pour bëreeg moom su bëggee bëreeg man sama staff d'accord ma bëreeg moom. mais li lamb bu neex la. waaw ah, bien sûr lamb bu neex la Weuz ndaanaan la bu baax a baax dañuy daje si hmm. xamante nañ bu baax kon xam suñu bëree dina neex. mais su fekkente ne tamit aussi bëgg naa ko moom bëgg na ko promoteur yi bëggu na ko wala staff bëgg ko sama staff bëgg ko tam lamb la. léegi soo ko bëggee promoteur yi bëgg ko. mu léegi dinaa la ma pare pour lamb dem naa defaru ji naa ñib si naa pare naa ku lamb booleel acca voilà acca Mhm. gannaaw gannaaw na ko doon supporter ba léegi yàlla dogal na ni. Mhm. xaw ngeen méngoo. pare nga ko jëflante ak ak kii. waaw comme ni mu ko waxee rek làmb moom. dooni du ma bëri kii wala du ma bëri ndax koo fi bàyyi tey ëllëg di ko soxla. Mhm. mais dafa fekk ni moom làmb da koo soxla. man làmb soxla ma. mu am sum lu mu jugee mu am su lu ma jugee. li ma préféré woon kenn ku si nekk dem xoole leneen ba taxawaat. ñu soog a ñëw ñu soog a xam ne yéen ñaar fi mu toll nii comme ni ngeen soxlaa nii bu ngeen daje woon combat du ko daax. Ah, que ku nekk bakkan bi lay doon. waaw combat yërmande kii teg nga deux défaites waaw moo tax man la combat boo combat la xamante nii ñun ñaar ñëpp làmb daf ñoo soxla ñëpp làmb daf ñoo soxla kon kenn ku si nekk war na mën a dem xooli beneen porte xool koo xamante nii da nga koy daan ñëw bokkaat Pause soo ma déggee yi ngay waxee dafa mel ni combat bu yomb nga bëgg. combat non du non du question combat bu yomb wala li wala li ndax combat bu yomb xam nga ni laaj goote yombul. naa may dégg. Mm-hmm. am naa yoo xam ñoo xamante ni ñoom may proposé ay may man dama leen li may bëre waa du doon combat bu yomb te du ma bëre benn pas proposé nan ma fi ay ay kii ay saalum saalum ay li man leen non ñooñu duma ma bëre ñoom. kenn daal xam naa ne d' demoon d' accordoon naa pour moom muy Maguette Seck. jaay Maguette Seck mel waaw Maguette Seck Boy Niang moom d' accordoon naa pour promoteur bi ma waxee man ko non Maguette Seck mën naa d' accord. ma ci jël dama lay duma ba ngay a dee ma tëral la. waaw ak i xaleem rek Maguette moom ak i xaleem rek. damay ñaan mu jël avance bi ñu bëre. déet moo lay xool Maguette Seck mu delloo avance. lii man mën naa koo seede. te waaye lii li may toog mën naa seede li may wax. yow Ousseyn. su la neexee soo paree nga woo promoteur mu dem seeti Maguette Seck mu mu ñëw seesi ma du yàqoo ci man na dem waxaale moom ba pare su fekkee xaalis la na ñëw ma jox mu dooleel ko. fii nga ko waxee de fii laa ko waxee. kase du ma boore promoteur mais na fekk adversaire bi jaral ma ko. lan nga gis si Maguette ba ñeme ko. waa dama xam ni der la. dama gis ni booy yu bari moo leen freiné. Mm-hmm. te xam naa lii nelaw ci man moom moo ko mën a yee. kon li ne ci yow lu ñu xamagul Maguette Sakho ko mën a cuq mu taax. moo ko mën a cuq mu taax moo ko mën a yee. <laughs> li ma ci métti mooy di leen séddaal yi ne lan moo tax woowuloo ma man loolu moo. <laughs> waaw <laughs> xam am jàmm Maguette Sakho ni ma ko xamee sax xamee ma la mais mais fi mu toll nii booy bi daal ni ma déggee mu wax nii dafa mel ni la fee bëgg a teggi parce que xaw na la ñeewantal tuuti ñeewantal na boppam bëggul kenn daanu ci dem ci saako yi moo tax mu ne nga dem seeti leneen mu dem seeti leneen mais fi mu toll bu budul bu budul wës jàmbaar ñan nga jàpp ne ñoo mën a bëri moom parce que moom fi mu toll nii ay laay gote la fi wax Maguette Seck. non man pare naa pour làmb déggoo li ma la wax. pare nga pour may booy chance. pare naa pour làmb ku ma làmb boole pare naa pour bëree moom. wallaahi la asim du caaxaan de. Euh, su ma naree toog bëriwu ma. ma takaat sama seer demaat ci àll bi. ba léegi dañ may contacter lamb am na fii lamb am na fii fu lamb tëggee dañ may woo téléphone. damaa gis nag benn booy. Hmm, muy kii. Euh, Giro Seras yi moom lëmbee na bawol bawol bi jaxase na leen rek day dugg fii tas ko duggaat fee tas ko fan yi sax ñoo ngi koy ñoo ngi wax digganteem ak euh, booy bi nekk foofu ci yéen mais combat dafa mel ni dafa xaw a kii bu laan noonu booy boobu di ko jot. Guiro Séras. wallaahi lazim bàyyi ma fi kenn. billaahi wallaahi wa su ma naree toog ñu naan ma bëyal muy dese ci man yàlla bu ma tegg ci damay bëree ci àll bi damay bëree sànq damay bëree nu mu toll damay bëree moom kon bàyyi ma kenn. damay tagg sama saak dugg ci àll bi paas sama xaay luy oto dem dem premier tour ma daanu ñib si waat loolu moo gën a metti ko may bëreeg ay booy si la dakaar fii nii. ku ma làmb boole pare naa pour bëreeg yow. na fekk stade bi d'accord si mais man du ma ki dara takk si rek dem bëre yi laa ci am mais ku pare ne bër bëre la kii damay bëre moom ndax man sama ba muy dugg si làmb damaa jëloon sama lépp ma teg ko si ay loxo ay loxo nit ba léegi récupéré gu ma ko dama ko ndax wanagul ma ñàkk fayda goo xam ne war na maa jëlaat li ma leen joxoon. jusqu'à présent ñu ngi sama ginnaaw di ma dooleel su ma daanoo su ma daanee. Mhm. ñu ngi may jàppale ba ci booy bi bi may ñëw sànq laa ko woo téléphone ne ko sama moto mënul dem mu taal ko mhm. la koy defal ku ko joxoon amoo amoo droit jëlaat ko. dëgg la waaw di nuyu waa Grand Dakar bu leen wax waa waaw làmb moom moo demee nii. Mhm. sport Sénégal xamuñu sport. da ngay daan 99 nga daanu benn ñu saaga sa ndey ñu baal ma ci wax <laughs> loolu mooy li ma la mën a wax da ngay bëre ba sonn ngay daan ñu tegal ñu naan yaa fi nekk yaa fi nekk yaa fi nekk billaay wallaay wa taala suba dee yow nga juum fi la ñu toog média yi wër mënta bëre xamul dara li la doon def man dama ko dégg dafa booy samay nopp damay romb sama koñ mbër da ngaa bàyyi bëre may la comme loolu nga gis baax na damay sant yàlla bu baax ndax comme mbër li mu wax rek man su ma bëree maa ngi liggéey su ma bëreewut maa ngi liggéey mhm. saa yu ma dem entraînement damay toog wàcc place sama place ne ko xoolal ma ñëw ma dem entraîné ji su ma dellusi waatee range sama bagage dem ñibbi waat su ma bëree ci laa nekk su ma ci laa bu loolu jaalee mu duma liggéey dagaa ma dem saami mm-hmm. wala ma saami wala ma dem bay man xaaruma yàlla fenn fu ma tijjile sama wërsëg rek foofu la sàcc rek lay bañ mm-hmm. ak wa tàllal sama loxo te ku koy xaar de ko gis man du ma ñaan kenn comme li ma wax su ma doon xiif dee xiif ma toog sama dignité deretu séeréer mooy daw sama yaram du ma ñàkkal sama bopp fenn fu la billaay wallaay wa taalaay dara jarul ma ko si àdduna ëllëg si bi nga jógee fii en tout cas de bu doon man mhm. loolu ku ne war nga koo bañ te lu ma jombale sama bopp la te am naa yaakaar ne doomu aadama lu muy am dina ko am incha allah ndax taalibe laa te murid laa lépp lu ma bëgg te awuma ko rek damaa xam ne dafa gënul si moom mhm. ndax Serigne Touba moo ñu ko lépp lu mu bëgg jotu ci ma sa a waat ne gënul si moom lépp lu gën si man yàlla dina ko def damay waat mbokk yëpp rek ñëw jàppale waat seen doom di santaat sama nijaay bu baax a baax tafa yal na yàlla fay sa xol ah, di nuyu ñoom Assane ñoom Boy Thiaw Ousseynou Assane Elimane Dione Elimane Dione France Dieng Sala Couture ma koy nuyu bu baax a baax di nuyu grand Ibra Mortala Ndaw Samba Kolobaan di nuyu grand Samba mm, jaaykatu daal aussi. mais fi mu toll nii fi mu toll nii gannaaw te fi mu toll nii dem nga dafa waat ba ñëw wàllu entraînement yi foo ci toll. entraînement yi door nañ ko commencé waat naa samay entraînement pour les gens déwuma maay physique. physique. damay xëy dem dawi ji kontu dawi ci loolu laa nekk pour defaraat sama cardio pour dem entraîner ci ndax suñu écrit xam bu ma diriger man la ñuy jox ma diriger entraînement te bëgguma dem di lor ay doomu aadama mm-hmm. dem ko man ma ko def exemple maa ngi laa koy daw su ma paree damay delluwaat ndax école de lycée Mbaba xam nañ kuy bébé julle bu baax man su ma nekkee triseur xam nañ ko su ma nekkee jàmbaar xam nañ ko mm-hmm. mosuma jaar ci benn salle kot su ba xam sama ñaa ko jom mhm. te du am ci àdduna su ma ko naree def rek ma bàyyi laango di nuyu sama supporters yi fépp mën a nekk ci àdduna fan si club bi ñëpp. maa bu bu ñuy tàggatoo di nga ci ñëw Weuz. Mhm. yow moom kenn du la gis di laajte ba xam Weuz a ngi ci entraînement yi wala nekkul ci entraînement yi fi mu toll nii wàllum entraînement xam naa ne contact moom. Mhm. fi mu toll nii laalaguloo ko moom. waaw ñun ins bii nii dafa tombeek ñun 100 pour cent yaraax bi su mel ni sunu grand Moussa Ndoye caatu yaraax loo ins mm-hmm. bi ñu ñooy ànd di hivernalu di entraînement mm-hmm. avant saison bi tijji tijji di tëj sax parce que bi nga commencé ak léegi-léegi mu mat ay trois mois mm-hmm. ñooy ànd di dem din ñooy nekkandoo géej ñooy àndandoo di entraîné salle waaw boobu ba léegi nag ñu ngi ciy gis suñu bopp te gis nañ kàttan bu si yokk trop waaw man moom li may wax entrenement moom wës mën nga ko waxal lu nekk ba mu des entraînement wës mën nga ko xasee lu nekk ba mu des entraînement entraînement dafa fekk ñun ñu bëggal ko suñu bopp mu doon loo xamante nii dama naan ñaar yi nii rusa rusee lu ma ko nit. Mm-hmm. du ma ko rusee nit du ko ragalee nit. heure entraînement ak waxtu julli fu mu jotee lu ma la ruus ruus dama la dem sama yoon. Mm-hmm. heure fu mu jotee lu ma la ruus ruus dama damay dagg émission ñu dem ma dem defi ji ko mm-hmm. kon ñaar yooyu noonu yàlla dimbali na ma ci. te damay wax lenn rek laa xamante ni du ko pardonné sama bopp ci làmb mm. muy ma ñëw ba ci làmb simmeeku ñu ne kii entraîné wul dafa yëpp ay supporteurs ñu ne kii dafa jël combat bi ñàkkal ko fayda entraîné wul. Mm. wala kii dafa dugg ba géew di waneeg ragal. wala kii dafa ñëw di ragal adversaire am wala di wane ay feeru ñàkk fayda loolu bis bu ma dalee ci làmb du ma ko pardonné sama bopp. dëgg la te du samay supporteurs aussi duñ ma ko pardonné. Mm. moo tax entraînement yi moom ñoo ngi ci bu baax a baax a baax di ànd ak suñu grand Moussa mu ñu teg lu metti dañuy entraîné ba wàccu. mais moom fu mu toll Moussa Ndoye mu toll. non moo ngi ci entraînement yi Moussa moom chaque jour moo ngi ci entraînement heure heure entraînement fu mu jotee léegi nga dégg sama téléphone sonné wës foo ne ñëw leen ñu dem entraînement. mais boobaa ak léegi bi mu génn ci Sa ba léegi tey digganteem ak Diène suba digganteem ak kii ba léegi xamuñ gisuñ dara lu leer. waaw xëy na promoteurs yi ñoo pareegul rek waaye Moussa def na sorti pare na pare na pour jigéen mi nga xamante ni da ko doon topp pour bëgg a bëri. dama dégg ne dafa ne pare loolu ay waxu waxu waxu jigéen la rek moo moo génn doon wax loolu mais Moussa Ndoye gi def na ay sorti même pas un mois ni pare na pour bëri ñoo ñi doon tëkku ñëpp pare na pour bëri ñoom. mais nag bi mu pare gars yi promoteurs yi doon wax anam nan ñëw. Moussa Ndoye pare na kon desul ci Moussa Ndoye. non non desul ci Moussa Ndoye bi avance rek la ñuy xaar. ndax avance am dafa ma dee dig un million moo tax avance am laa yàqam. waaw yow kay ni avance. yàqam ni naa mu ñëw booy bee moo ngi commencé topp ci <laughs> euh, boo amoon kàddu yu mujj parce que ñoom mooy signaler ne temps bi jeex na soo amoon kàddu yu mujj lu mu doon. waaw dañuy santaat yàlla bu baax. Mm-hmm. Euh, di ñaan yàlla suñu boroom jaamu yàgg ci réew mi. ndax jaamu rek a fi xaj. Mm-hmm. ndax Sénégal gépp benn bopp la. Mm-hmm. Ah, soo amee jàmm te sa njaboot amul jàmm rek amoo jàmm yàlla yàlla defal jàmm defal ko mboolem jullit daay seydina am salaam di nuyu waat sama sipatiyaay bu baax a baax fépp fu ñu mën a nekk ci àdduna di nuyu waa Bawal waa Joal waa Fimela Diofior mm-hmm. maa ngi leen di bu baax a baax li commencé xombal ba Ndiayène Seex jàpp Bunding ba Fisane Mbadane maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa Kër Julle sama document di nuyu waa Grand Dakar ko ñu bataa bente li ñaari tali biscuiterie bi bàyyi ma fenn maa ngi nuyu ñëpp di nuyu waa marché Tilène jaaykatu jën yi jaaykatu or yi jaaykatu tis surtout ci ma bokk képp kuy wax yokkal ma jaay la rek maa ngi lay nuyu bu baax a baax di woowaat staff bébé Julde. ak ma waa ñu fekk si la. Ah, di leen woo bu baax a baax. Euh, ne leen mbër ca la mu nekkoon ba léegi ca la nekk xëy na nag tolof tolof mënut a ñàkk ci mhm. dox te fakastuloo hmm, war ngaa xoolaat sa bopp bu baax. yàlla ki mu bëgg rek lay teg natoo. Mhm. soo ko muñee dina ko teggi te muñ nañ ko bu baax a baax. Mhm. yàlla na ko yàlla teggi bépp laam bu nekk sunu kanam yàlla leeral lépp Euh, di ñaanal nag bépp mbër bu yaakaaru rek yàlla bu mu la dal ndax comme dalulee xamoo metti waay bi euh, dem ba sa buntu àdduna fi nga war a tekkee sa àdduna am fi tolof tolof dara gënu koo metti mm-hmm. waaye lu du jeex amul yàlla na ko yàlla jeexal mm-hmm. di ñaanal sama mbokku Baay Faal yépp maagal Daaru Xudoos bi ñëw ñu dem ci jaam mu ñëw ci jaam di ñaanal sama wasila yàlla yàggal ko fi mm-hmm. luy teggi nag mu tudd turam ci ci média ndax dama ko gisul mu koy def mais maa ngi koy ñaanal bu baax a baax a baax waa Daaru Xudoos bi yépp taalibe yëpp maa leen di woo màggal gi la 18 la ñu dem màggale ci jaam ñëw ci jaam ci barke alxuraan maa ngi nuyu mbokk yi yëpp ah, di nuyu sama ménagère bu baax a baax Abdoulaye Ndiaye. Hmm. di ko wax ne yaay pare nañ comme nañ ci doon jàppee ñu lay talalaat loxo bu baax a baax ay ndaw lan nag yoo xam dañoo yaakaaru ah, ku ñu teg loxo ba nu jaarale rek la ñuy wër soxla wu ñu xaalis soxla wu dara conseil ak combat ñu bëri dem rek moo ñu yitteel. promoteur yëpp ñu ngi leen di woo di leen ñaanal yàlla suñu borom yokk seen kàttan ba li ñu man reen ñu mën ko diween lu ko ëpp. ndax euh, sans promoteur rek mbër du bëre sans mbërit promoteur du am kon nañu joxante loxo boo ko ndey ak bàyyi jaamu am ci réew mi di ñaanal waa CNG taxawaay am ci làmb rafet na trop sanction yi ñu teg yéen yi nañ ko teggi te baal leen xam ne ay xale lañ njuumte rek moo tax ñu def ko. buñ xamal ne loolu leen ci fekk xëy na duñ ko def hmm. wala seen fukk sanes rek moo tax ñu def ko hmm. di ñaanal ñi nga xam ne ñoo ne ci prison yi yàlla suñ borom may leen liberté ku ci mel suñu rak samaan hmm. waa deuxième monde ak ña fa nekk ñëpp ñu nekk lalu hôpitaux yi yàlla fëgg seen bopp bañ delluwaat seen yitee képp ku am jafe-jafe àdduna rek yàlla suñu borom saafara ko ci barke alxuraan natu nag mënta ñàkk ci jaam mais yàlla ku mu bëgg la koy teg ñëpp ku mu ko tegg ci barke alxuraan wasalaamaaleykum wa rahmatullah sant nañ bu baax a baax. Wuz kàddu yu mujj. Ah, mhm. ñu ngi am contentement bu baax a baax a baax. ci ci émission bii nga xamante ni moom lañ doon tourné. Mhm. xëy na yàggoon nga ko bëgg. waaw tey la ko yàlla dogal quoi. dëgg waaw di am contentement bu baax a baax a baax. di wax ni su fekkee wax nañ fi loo xamante ni lu teg nuwu la. ñoo ngi koy jéggalu xam ne lu rafet lañ si jublu woon. incha allah lépp waaw di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg. Mm. ñu kilifa diine yi yal na leen fi yàlla bàyyi may leen wér ak wérle ñu yàgg fi lool ci suñu kanam muy sëñ Muntaxa sëriñ Mbay Si Mansour xalifa laaye ni ñaseen kilifa chrétien yeeg ñëpp yal na leen yàlla may wér ak wérle ñu yàgg fi trop ba seen léegi sumbu maam bi nga xamante nii moom lañ sumb yàlla kàttanan leen Mhm. ba nu yeggali ko ci darajay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal waa axlu làmb mhm. képp koo xamante ni da ngay dund ci làmb mhm. yal na la yàlla defal jàmm surtout waa diaspora bi ñi nga xamante ni dañuy jël làmb di ko décentraliser si dëkk tubaab yi. nekk foofu di ko waxtaanee. da leen xool sa des fois ci direct yi nga xam ne ñii amuñu amuñu beneen jot lu dul làmb làmb rek la ñuy waxtaanee. amour bi la waaw amour bi da leen topp ba foofu. di nuyu ki nga xamante ni mooy Serigne Ndiour. bu yaraax ñu ngi koy ziar bu baax a baax a baax a baax moom moom moo ñu moo ñu teewal ci diaspora bi. Mm-hmm. waaw sama fans yi nga xamante ni doo nekk ci diaspora bi yëpp Weuz Diambar moo ngi leen ziar bu baax a baax di leen nuyu. di wax nag CNG na xoolaat làmb ji comme làmb ji tëj na na xoolaat li nga xamante ni ay erreur am la moom ci boppam. Mm-hmm. mu mu rectifier ko. Mm-hmm. ndax bari na ay erreur yoo xamante ni am na ci làmb ji saison bii nii ñu génn. erreur u CNG la. mais ñoom duñ ko d'accord. Mm-hmm. waaw parce que loolu ñoom duñ ko nangu mais mm-hmm. suñ demee ba toog seen réunion dina xam ne ñoom erreur bi amoon ci làmb ji ñoom la. Mm-hmm. pour ñu bañ ko rectifier wu ci saison bi nga xamante ni moom lañ dëgmal bii di ñëwaat. waaw di ñaanal amateur yëpp yal na leen yàlla defal jàmm. ñoom xamante nii amuru làmb rek moo leen dugal ci làmb amul benn xaalis bi siy gagné. gagné wuñu si dara xëy na seen xaalis moo ciy dugg. mais amuru bi rek moo leen topp ñoo ngi leen kenn ku ci nekk ci li ngay yëngu liggéey ba ngay yëngu yal na la yàlla teral teral la ci bu baax a baax a nga am ci xéwal bu bari. di nuyu waa Ngaye Mexe sama waa koñ. di jël nuyoo bi di ko teg ci sita vieux Siteu ñoo ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax xam nga di ziar Talla Baye Fall sama doom yaay di ziar Lat Seck Pablo Fall waa kër Baye Malick Fall yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di nuyu Ahmed Baye Daaru ñoom Ngaye la nekk sama mafia bi nekk Ngaye ñoo ngi leen di ziar alu borom iPhone yi ñoo ngi leen di ngi koy nuyu bu baax a baax di nuyu. di nuyu Ndiaga borom City Class ngi koy ziar bu baax a baax a baax di ko nuyu di nuyu képp koo xamante nii yaa ngi dëkk tund Kajoor ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di nuyu di nuyu sama mag yi nekk foofu ñoom Ibra Gueye ñoom Ahmed sama rax yi ñoo ngi leen di ziar bu baax di ñëw yaraax di nuyu sama mafia bi fi nekk di jël nuyoo bi di ko teg ci Saataala Mbay xam nga ak marieur yi fa nekk yëpp. Hmm. mool yi fa nekk yëpp tamit Weuz Diambar moo ngi leen di ziar waa yëngal baaraay xam nga ak képp kuy ferrailleur tamit Weuz Diambar moo ngi leen nuyu bu baax di nuyu suñu waa société waa Westaf Metal. mu hmm. ngi leen di ziar bu baax a baax di leen nuyu di jël nuyoo bi di ko teg ci DG bi muy jag ñoo ngi koy ziar bu baax ñu ngi gis jàppale bi nga xamante ni ñoom ñu koy jàppale waaw ñoo ngi leen ñu ngi ñaan société bi dem ba doon. société bi gën a mag fii Sénégal. Mhm. waaw di nuyu ñëpp di nuyu ñoom Cheikh Diouf taaliba seen Cheikh Jaxate bi ñoom monsieur di ñaana sama ñaari nit yoo xamante ne nii bi may préparé combat bi yàlla dafa dogal seen bakkan wàcc. xam nga kenn gi moom su ma daan ñëw ci yii sax moo ma daan gunge fu ma daan dem signature rek yëpp moo yoroon sama lépp. moo yoroon staff bi yëpp muy Ousmane Fall kooku moo géré woon sama lépp. kooku daf ma doon wax wës soo tëddee dama nelaw entraînement kese laa la sant lépp lu nu war lu nu war li mbër war a dox moom moo ma ko doon doxal. moo daan mobiliser waa koñ bi di leen wax pour ñu ñëw jàppale ma yàlla dogal may préparer sama combat ak Santa Ñing mu gaañu gaañu bu gaaw xam nga di ko ñaanal ak Mara tamit ñoom ñëpp danoo gaañu si bi may préparer sama combat bi ñetti nit laa si ñaaku père Mbiita Njaay bi ma nee suba laay bëre mu gaañu ci guddi gi xam nga yooyu yëpp ma ñëw bëre waale ko xam nga di leen ñaanal ñoom fee ñu fi ñu fee ñu jëm gënal leen fii ñu jugee. yàlla dafa leen jàmm ak bépp woy dawlu. képp ko am mboq boo xamante ne dafa génn àdduna yal na ko yàlla saafara yàlla na ko yàlla jéggal dugal ko àjjana si àjjana yi gën a kawe. di nuyu ñëpp di nuyu waa ñoom Aliou Thiam laay goote laay goote peer yu xam nga lamin ñu ngi koy ziar bu baax a baax ñoo ngi leen nuyu di nuyu ki nga xamante ni mooy wakaana. maam Thierno Wakaana maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax sama DG ñu ngi leen di bu wér a wér di nuyu ñi nga xamante xam nga rek mbër dafa. yaatu ginnaaw quoi mbër dafa yaatu ginnaaw. soo tuddee kii tuddoo kii rek xam nga gars yi mën nañ ko gisee neneen xam nga di nuyu waa Défoncé bu baax a bu baax a baax waa Défoncé maa ngi leen di ziar bu baax ferrailleur yi nekk foofu waa Kasoor xam nga waa Colobane sama booy séeréer yi nekk foofu yëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax xam nga di nuyu Saliou Saliou saaliw ferrailleur maa ngi lay ziar bu baax a baax Saliou yaak Axma maa ngi leen di bu baax a baax ak waa Feeraay bi yëpp. Mm-hmm. ñu ngi leen di nuyu bu baax. di ki nga xamante ni kenn la ci man xam nga di ko ziar muy Aliou Thiam ñu koy wax laay ñombor numéro xam nga ak Rakham Ngañ ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax. waaw ku ma nuyu rek xamal ni yaa ngi sama mm-hmm. waaw di nuyu waa 100 pour yaraax bi yëpp. ñoom Mansour États-Unis xam nga ñoom Yaya Kara ñoom ñëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax di am contentement bu baax. gis ngeen mbokk yi tey noonu la demee woon ci jàmbaarloo bi ma daaloon ak ki nga xamante ni mooy Bébé Diouldé ak ki nga xamante ni mooy Weuz Diambar di kontaan ci ñoom bu baax a baax ndax euh, comme ni mu ko waxee rek yàgg naa ko bëgg même ba ci Bébé Diouldé mii yàgg naa bëgg teew mu teew fii mais tey la ko yàlla doo koy dogal euh, di si jaajëfal sama caméraman yu ñaaw li xam naa ne tey sonn nañ mais nag noonu la seul le travail paye maa ngi nuyu ndeyama di ko wax di ko wax joyeux anniversaire di ko wax yàlla na dund dund bu baax a baax yàlla may ko borom kër bu baax bu doon ci moom Hmm? ak xalil xalil tamit tey la anniversaire mais anniversaire bi gisaguñ dara <laughs> amagul gâteau amul boisson amagul dara bu fekkee nag nii la na kii tey moom dinañ ko réclamer. Ah, ah ndax ndax déedéet jotali ma ko joxal ma ko mu jàll jox ko. Ah, waaw waaw. wasaare dafa am lu ma bett fan damay wax Ousseyn damay kaas <laughs> waaw wasaare yëpp man la jox seen baat. waaw ah. baaree kaasal. anniversaire Khalil tey da war a jënd ay gato jënd ay affaire jënd ay kii. ku dugg sax ay baabu ay bas ay fa téye seen loxo quoi tamit. lii neexu ci xol yëg nañ ko ko mais yooyu mooy loolu dañu war a jënd gâteau yéen jënd gâteau Khalil fu ñuy dem cadré filmé. waaw anniversaire yi ngi xaar sama bas waa anniversaire boobu gars yi ñëw la way gis ngeen mbokk yi nii lay demee ci jàmmaarloo dina leen jóg dig daje beneen yoon ak yeneen mbër jaa ngeen jëf.